salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, ñu ngi muyoo ñëpp di ziyaara yëpp ci bés bu rëy bi nga xam ne moo ñu fi tax a daje day ngi dal aussi waa kër Moussa Info ci sunu bés bu rëy nga xam ne moom la ñu ñëw tey muy tudd sunu doom Alioune Diouf eh, mu nekk xale boo xam ne doom la ci ñun waaye ku yem loxo la waaye ku am yëg-yëg la ci doomu aadama moo tax bu amee bis bu toll nii ah, dafay rafet lu ñu mënoon jàpp rek ñu bàyyi ko teew bokk ak moom bisam bi mbégte bi nga xam ne bisu sant yàlla la ndax yàllaañ ci xéewal ah, koo xam ne yokkute la ci lislaam nit dund na ba jóge ci àdduna amul mbégte bu toll nii te bëggoon ko lool ci xolam bon bu ko yàlla mayee nit ki dafa ci war a sant yàlla ñu war a ànd ak ñoom ñëpp na bokk ak moom bés bi santale ko yàlla ndax yokkute la ci lislaam bon Seydina Ali li ñu xam ci moom daal mooy ku teey la ku yaru la ku joxe cër la te itam ku fonk liggéeyam la ah bon daal ñu ngi ñaan ndaw yëpp ñu jël ko comme royukaay ci fonk liggéeyam ak yëg bi mu yëg nit ñi ak bokk bi muy bokk ak nit ci bépp yëngatu boo xam ne ñu ngi koy def ah te itam diineem mu koy toppatoo loolu sax ci lañ ko gën a nawee nit lu mu mën a toll bu ñu ko xoolee gis ne wàllu diine ak wàllu jikko rafle na ci booba dafa am fu ñuy yem ak moom waaye Aliou ah loolu yëpp gis ñu ko ci moom am na yëg-yëg ci nit ñi fonk na diineem fonk na dëkkandoom yi fonk na waajuram yi bon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a sàmm yàlla gën ko aar liir bi nga xam ne moo fi tax a ñëw te yàlla na ko yàlla sàmm wattu ko aar ko bon waa leer waa ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne yéen a moomee eh, eh, Kër Moussa Info yi ñu ngi di sant di leen gërëm. ñu ñaan ñëpp di woo ñëpp ci jàmm ci élection yi nga xam ne moo ñëw ci mooy ñëw ci réew mi yàlla na ñëw ak jàmm dëddu ak jàmm ñu xam ne ñii war a falu yàlla xam na leen démb avant tey. ndax yàlla mooy tànn ku ko neex ginnaaw bi ñëpp a tànnee mooy sësal tànnam nag ci ku ko neex kooku doon li muy doon bon mbir mi nañu ko rafetal xam ne ñun ñëpp benn bopp lañu ñoo bokk réew mi ñoo bokk diine ji ñoo bokk lépp loo xam ne mooy jagal réew mi ñun ñoo koy wutadoo bon maa ngi ñaan ñëpp ànd ak dal ànd ak jàmm Euh, xam ne lii dafa jaar rek day dem waaye mbokkoo gi dafay des réew mi dafay des bon bu kenn def jëf joo xam ne day tax ba fitna am ci réew mi wala fitna am ci gox yi maa ngi ñaan ñëpp daal ñu ànd ak dal ànd ak teey ak tekkaaral xam ne li yàlla di dogal rek loolooy am jarul ñuy indi fitna jarul ñuy ŋaayoo bon ñu ngi woo ñëpp ci jàmm daal ak ci dal ku yàlla fal rek nga xam ne moom faloo ñu félicité ko ndax démocratie noonu lay doxee bon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ak taw fii réew mi yàlla ci yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def dal loolu la ñuy woo ñëpp ñu ànd ci loolu te islaam itam loolu lay woowe ndax ci jàmm ci la ñu mën a développé réew mi ci jàmm ci la ñu mën a tabaxee gox yi ci jàmm ci la assemblée bi nga xam ne moom la ñu bëgg a taxawal ñu toogal fa muy ndaw réew mi ci jàmm la ñu mën a toogalee réew mi foofu Euh, mën a génne xalaat yoo xam ne day delluwaat ci askan bi ci jàmm bon daal ñu woo ñëpp ci jàmm élection yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ñëw ak jàmm romb ak jàmm ñi gën ci xeet mi yàlla tànnal ñu leen ñu nekk ci jàmm taxawul eet bon loolu day la amoon may woote ci wàllu élection yi Hadji Ngalla Ciss El euh, Hadji Ngalla Ciss ah, di jàppale imaamu ratib bi suñu papa Babacar Diouf mooy imaam bi ñun ñu ngi ci wetam di ko jàppale laaji gaal si site de recensement bi fii la ñu nekk asalaamaaleykum wa